jamono dox na ba ñu bëgg koo jaxase def ko benn li ñuy bëgg a leeral mooy wuute gi nga xam ne am ci diggante góor ak jigéen xew-xew am ba tax bi sëriñ Tuubaa sëriñ Muntaxa yëkkati ay kàddoom lu ko jar la lu ko jara jara jar la wax ba ne كم نخ لولو نخ دفال واي سكرا من تكرم برسخ من تكرم يوم القيامة توقفت لولو القرآن القرآن مو وخ أك نت نب نت نت لني باري باري باري أبلم رومنك نيدلا وخ نانغامي مليون ما فدك لني باري باري نيار رك فنك مي غورك جيجي suñu borom nag bi muy wax ci alquran aaya boobu sëriñ bi wax mooy ne nit ñëpp xam ne bu yowmal qiyaama kenn ku nekk lam defoon ba mu tee mu kàllax ba ni mu faatoo lépp yàlla dana ko tegal ci kanam bu ko yuna baw insaan yowma idin bi ma qaddama wa axar dal di cay teg ne mbaadu nit ñi dañoo defee dañ leen fii indi rek nit ñi la wax dañ leen fii indi nii rek ñu war fay nekk fu deewam jot rek mu dee mu jeex dal di wax fi nit di jaar ba ba mu doon nit loola jaar ga mooy bu ko xamalee fi mu jaar dana ko xamal ne koo xam ne ba dara nekk gu dara la fexe ba dara nekk bu ëllëgee gi si biir amalaat loola du dara ci moom أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يكن نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى loolu nit di foofu nit di daal moom rek moo na mooy xam kan moo cay doon góor ak jigéen fa jaala minhu zawjayn addakara wal untha azawjayn mooy père père lu mel ni père daal wala nga wala doomu guro nga xar ko muy yaari ngànt loolu nag lañ ciy déggee day firi aaya bi mu waxoon ne yàlla dana nu won ay kéemaanam fu nekk foo ko xool mën koo gis ba ci suñ jëmm yi buñ ko gisee danañ ca mën a xam moom rek mooy dëgg te lu mu wax mooy dëgg sanurihim ayatina fi l afaqi wa fi anfusihim xata yatabayana lahum annahu lxaq bi mu defaree góor ak jigéen nag euh, am na foofu ñoo fay tolloo yam fa kepp wuute gu rëy rëy fi nekk waaye am bari na foofu ñoo fay tolloo bokk na ci fa ñuy tolloo bala ma ci àgg fa ñuy tolloo it kenn ku ci nekk ak walla nam leen wuutalee la wuutalee kenn ku nekk ak wàlla kii man ci gën a fës mooy góor ak jigéen bu ñu nekkee ci bitti di wax mën nga leen a xàmmee doon te gisagoo seeni jëm boo gisee jëm jom waxaale wuñ ko waaye boo déggee ñuy wax képp da nga xam ne koo kee góor la ka ca des jigéen ba ci seen ree ree loola day topp góor ak jigéen laata muy agsi foofu sax la ko topp ndax ñaari xale yu góor ak ñaari xale yu jigéen yu denn duñ bokk am po duñ bokk sax nu ñuy fayee foofu dañuy tàggoo bu dee xale yu góor yu métti rek ngay gis ñuy fayee. songoo daaneelante sànneente daw jëkkante ba xam kuy jëkk fee ak ku man loo xam ne doolee koy def bu dee xale yu jigéen yi li ngay gis ñu tàmbali ko jëkk a fooyee moo yor ay doom ku leen wax ne jigéen moo yor doom ay doomi doomi sagar léegi sax defaral lañ leen defaral lañ leen li seen yaay yi toog gi lépp mu ngi doon yu ndaw a ndaw yu tollam ndaw waaye foofu la tàmbalee tàggoo ba ba ñuy toll ni ñëpp waaye bu ñu demee ba toll ñëpp nag ba doon yi mu kàllaf kenn ku nekk tam nu muy doonee mu kàllaf nu réelu wuñ ko kenn ku nekk kañ lay doon mu kàllaf charia mi nga xam ne moom la moom mooy tënk julli di ñoom góor ak jigéen bokkale wuñ ko xanaa fenn képp lañu fa bokkale fenn loolu ku dem ci waroom xam-xam ko laaje mu wax lu xam-xam ba néew néew waaye fiñ bokk mooy ñoo bokk war a doon jaami yàlla gëm yàlla ci ponkam yépp bu def ko jotee it ñu bokk ko di ko def waaye foofa it dafay wa day wute léegi ci saas ndax bu dee jaamu yàlla gi la su dee julli yi la yaa ñaari góor fu ñu daje da dégg kenn ki ne moroom bi doxal kii ne ko doxal kii ne ko doxal ba kenn ki nangoo dox kenn ki liqaam ñu julli ñoom ñaar su dee julli guddi wala ak suba ñu wax ca kaw bu dee bëccëg ñu wax ndànk ba sëlmal waaye bu dee ñaari jigéen lañ buñ dee jiiteente it kenn du jiitu morom ñooy tolloo ñaari góor ñu tolloo woon ñaari góor ñi nag su su leen keneen ñetteelee kenn day jiitu ñaari ñu topp ci ginnaaw waaye bu dee ñetti jigéen bu fekkee mënuñoo ñàkk a jiitante dañuy tolloo nag ñaari góor tolloo xam nañ fa wute nañ ci borom jigéen moom nag néewuñ ko nga liqaam nodd moom waxaale wuñ bu dee jullit timis ak gee ak suba yi naka góor defe bokk la ne ko jigéen def jigéen dañ ko ne na ko wax ndànk ba yow képp nga di ko dégg mooy yàlla kon bokk wuute gi dafa bari lool dem nañ ci ba bunyi ñuy aji makka dañ naan yéen ñëpp dem leen barab sàngam armala je fa li tax ma ne barab sàngam ñiy aji bokkuñu fi ñuy bàyyeekoo kenn ku nekk ak miiqaam waaye armal moom nañ cay def benn la mooy julli ñaari rakaa fekk sol nga sab armal nga yéene aj gi nga bëgg aj ñoo cay bokk yéene waaye fi mu wute gi ñaari lañ ko jox armal mu sol ko benn bi mboor doo ko benn bi mu la kaay yóbbu waaye jigéen moom nam soloo woon këram ba ñëw lay soloo mu wuute foofu ba tey bu dee asaka moom bu fekkee ñooy bokk di liggéey liggéey bu dagan moom benn la ñaan noonu koor noonu waaye koor it léeg-léeg jigéen taxaw mu wàcc ko te du wàcc góor waaye julli yi mu wàcc jigéen te du wàcc góor kon boog mën nañoo bokk di wut ab yool di ko jaaree ci jaami jaamu yàlla gi waaye léeg-léeg nag dañ laa ko taxawal fii mu taxaw fa góor dem loolu wuute gu fës fës la waaye it tudd naa léegi wuuteeg yaram seen yaram bokkul nu ko yàlla binde loolu ñi nga xam ne dañoo xew léegi naan góor a jigéen ñoo war a tolloo ñoo war a yam doo gis mukk ñu juum ba boole ci mën naa ko jaar ci sport bi ñu boole loo xam ne góor ak jigéen ñoo ñooy bokk benn équipe di xëccoo xam nañ ne seen doole maase wut ñee taxaw fee di góor ñee taxaw fee di jigéen déedéet duñ boolee tam ay góor ak jigéen ñu bokk benn équipe bi waaye góor ñi góor ca góor ñi jigéen ci jigéen loolu moom baaxut nit la noonu lañ ko xamee naka jekk doo gis mukk ñu boole équipe ak góor ak jigéen ñu war a xëccëw mel mbir xam nañ ne góor ñi duñu seen morom ci ci kattan ci gaawaay ci mën a dékku ci aw fit waaye yëg-yëg bokkule wuñ ko ndax léeg-léeg liy jooyloo jigéen xaayuta góor liy jooyloo fi ku jigéen ñoom ñëpp ñu àndi jooy genn wàll ga sax mën naa bañ a jooyloo góor mu ne koj ko joorool di leen xool naan li ñuy jooy lan kon wuute gi rëy na lool ci biir charia al islamiyya am ay atte yoo xam ne góor kese ko tax a jóg ak atte yoo xam ne jigéen képp ko tax a jóg kon fi ñuy daje daal bari wut fi ñuy daje yem fa képp xanaa mooy payog yàlla gi pay gi ab yoon bokk na ci fii charia di waxee góor kese kese te waxuf ak jigéen ñun ñëpp miin nañ arrijalu qawwamuna ala nisaa góor mooy yor kër yor kër gi bu ko waa jamono tënkee ci kenn ku nekk day liggéey ñu bokk di fay courant di fay ndox di fay téléphone ak joxe dépasse kese day yomb lool day yomb lool te leen rek jigéen nag mënuma ko waaye rijalu qawwamuna ala nisa mooy góor mooy yor responsabilité bi kër bu dara jógee guddi war a faagaagal kër gi moo war a jóg benn mu faagaagal loola wala loola faagaagal ko door jëfandiku ci waa kër gi moom la war bu dee jigéen lu cay wàllam composé numéro yi nga xam ne mooy wàllu nit ñi képp wala mu yuuxu képp ba fi ne nii li ñuy bañ bañ bañ foofu rek lañ toll ba léegi wusaguñ foofu waaye koo xam ne dañoo yuuxu mu yor gànnaay jigéen di wutali ko li ñuy jàmbaar jàmbaar ak guñ foofu la responsabilité boobu ci góor la ko yàlla teg yor kër gi di leen dundal ba noppi di ko sàmm ba noppi it di leen jox ñuy lekk kanaan mu wut fu ñuy dëkk di leen aar di leen faj bu ñu wéree di leen taxaw bu ñu leen tooñee foofu ak benn la ci ate boobu góor la ba yàlla def rijalu xawamun ala nisa waaye ab yónent it an nubuwatu ak risaala doon nabi wala mursal góor képp la ko yàlla di def ak ña leen di wuutu itam nag loolu la ko waral am na yilla ndax loolu léeg-léeg mu laaj coono boo xam ne bii coono booba góor rek la yàlla waajal aw yaramam ngir mu mën koo dékku coono dox diggante dëkk dëkk dox guddi dox bëccëg woote ñëpp ñëw kenn attaqué la song la ak yoxoom wala mu yor dara bu fa jigéen taxawee du weesu damay daw ak wala mu yooxu jàpp moo tax ak yonent ak nubuwa mooy nekk nabiyun comme Seydina Huud nag yusuf ak ñu mel ne moom Zakariya Yahya Isa Ilyas waaye nabiyul mursal Seydina Isa ñoom ak wàllu laas bi ak ñooñu ay góor lañ mas doon yor bindu góor di wax waxinu góor daj coono bu nekk bala ñuy taxawal taxaw walla ñu faagaagal leen te lool moo tax wolof day jum naan jigéen góorgóorlul waaye jigéen wërta góorgóorlul diine sant sant gu góor góorgóor daa war a jigéen jigéen ba ca dolli ba ca topp mooy kilifteef kilifteef ci kër tudd naa waaye kilifteef ba ci maye ab sëy yàlla mi ngi ko teg ci loxo góor sharia ko teg ci loxo góor waaye atte di àtte di àtte nekk xaadi ci lislaam góor la ko yàlla teg ci loxo ndax yee ma waxoon ci nuboo ak ak risaala rek ay coono dékku mën a muñ du def lu jóg rek nga jooy ca du def lu jóg nga mer du def lu jóg nga yuuxu moo ne jihaad it góor ñi képp lañ ko santoon daanañu wax ñiy dem naan leen bu leen rey jigéen xanaa lu dul mu yor gànnaay wala mu dugal loxoom bu baax a baax ci xare bi bañ xàmmee ko ca di joxe information di jox ña lekk ak naan leen ubbil këram ñu dafa fanaan su boobaa ci ci xare bi la waaye yor leen gànnaay yi moom góor gi kese la ko lislaam a sa ak julli ji ajjuma julli ji ajjuma daa am jigéen ñu ñu may ñu def ko wala ba ne ko lislaam tëral la rek ak jullik mbooloo jullik mbooloo dem ci jàkka ja ji dama ko dikk doonte léegi xew na ñu defaral jigéen ñi fu ñuy julloo ca wàlla ca gannaaw góor ña waaye léeg-léeg ñu def lañ fay bañ ndax léeg-léeg ñu yor yu yëngutu wala yuy xeeñ di xeeñ wàccuwaat nodd ak liqaam tudd naa ko léegi kon boog wuuteeg yàlla yàlla ci boppam moo leen bind ñu xam ne moo leen bind moo ko wuutal moo ne passé day moom itam ci loxol góor la nekk jigéen mën naa def dañuy wax summiku joxe alal nañ ma fase ñaan passé kon man na ni moomut loo ñaan ma moomu kon bu dee kilifteefug maye jigéen li nii moom moom boppam bu demee bu demee ba dikk texut mu sañ mayee maye boppam faaw mu dem ci kenn ne ko joxu kilifteefug maye foofu la jigéen doon ci foofu la foofu la lislaam yamale jigéen Euh, pase it ci loxo góor la nekk doonte jigéen mën naa jël alal li ñuy wax summiku wala mu dem ci wala mu kalaame ji fa ñuy kalaame ne daa bëgg a bàyyi waaye su boobaa it góor gi mooy bàyyi mu sa ko dox loolu it kenn fekku ci góor moo ne koo naan koy wax aw santam itam sant baayam lay yor sant sant baayam la doxoon la ud'uuhum li bu ñu demee ci miraas dañ koy gis te am na yàlla ñii kaas léegi dañ naan dañoo war a toll waaye lislaam du taxaw ci mbir mbir moo xam ne nee na xaw ma nu ma def du juum ginnaaw góor mooy yor kër mooy faj mooy aar moo war a ëpple ndax moo ëpp soxla ci alal ji moo ci ëpp soxla moo ci ëpp lu muy def waaye ay attee ngi nii yoo xam ne jigéen kese la àtte góor bokku ca ba ca jiitu mooy booy jàng ci téere yi ñu naan mbaax gis mbaax góor mën naa jàng àtte ba xam ko waaye du du ko mas a gaar mukk jigéen rek mooy baax ak la cay topp ñu koy wax jor ngel loo xam ne daa weesu fa mu doon yàlla nuñ cay def danañ ko jàng ba xam ko waaye mën nga ko umpale ba faw ndax du la mas a dal mën nañ la koo laaj nag fekk jàngoon nga nga ne ko defal lii defal naa waaye lam cay xam góor du ko mas a xam mukk ci ëpp waaye aw mat wan na dara aku mat ku dul yàlla ak jigéen mënu koo xam yàllaa ko xam moo moo moo ko xamal moo ko def si moom ilayhi yuraddu ilmu saati wa ma taxruju min samarati min akmamiha wa ma taxmilu min unsa wala tadaw illa bi ilmih mom ci bopam dana ànd ak dara ab diir dor ko xam kon yalla jëk xam ba dara am gut waye lim la ci mën wax du bari doonte moo ko yore waye lan la ci mën wax mu néew bari góor lu ko mas wax ndax góor du ma si muy ëmb ak atteem jigen lañ ci atta way duñ ci atta góor kon fofu tam wut nañ fi lool waye gannaaw bu am doom amé wet la cey topat ak nifas atta bi góor mën na koo jàng ba di ko jàngale xam ko lool waaye nag mënu koo gën a xam jigéen ñi muy dal ndax moom du ko ma a dal euh, góor soppaliku na jigéen ñu ngi koy dégg léeg-léeg yàlla nañu ci yàlla musal waaye jigéen soppaliku na góor moom du ma a am du mas a am mukk ci àdduna waaye nàmpal àttab nàmpal ak la ca war la ca aju lépp nit dana ko jàng ba war koo àtte man caa àtte waaye nampal ak la ca aju lépp itam jigéen dong moo tax ñu ñu àtt ko kese kese góor du ko mës a xam moom waaye idda wu itam idda idda itam jigéen képp lay àtte mooy koo xam ne daa tàggat borom këram benn muy dund wala mu faatu bu faatoo baatut idda bi day soppale tudd li ñuy wax téñ waaye àtte yooyu yëpp itam jigéen képp la ko da ca sariyaa di àtte kon daal da koy topp ba àgg ci bu ngi doon ci miraas ñu fàttali nag ne ba lislaam ñëwagut jigéen dañ ko daan doon ci biir miraas waaye daawul doon dañ ko ñàkkaloon fayda bi lislaam ñëwee la ko jox ab cër cër bi nag day soppiku saa su nekk bu doonee soxna balaa doon soxna sax day doon yaay ba noppi bu doonee yaay ba yàgg mu màggat doon maam Eh, doomam doon soxna doon soxna wala mu doon doom wala mu doon rakk wala mag lu ci nekk ak na ko lislaam atte atte ci jigéen kon boog rikk bu jamono soppiku mukk bañ jàpp ne lislaam daa war a soppiku moom bay wutal sax ñenn ñi exception naan règlement boo am na exception lislaam xamul exception lislaam ngànt la xam li ñuy wax exception génn ci ñi ñee am ca lee ñee tële ca lee amul ci lislaam l'islam lim xam moy ngant ngant yo xam mom moko teural ni li ak li moy ngant foofu rek la yam ndax bi ñuy wax ak julli dafa ne udkhulu ya yaa ayyuha alladina amanu udkhulu fi silmi kaffa l'islam bo cey nek da ngay jël léppam baña dugg ci numinu bi ba'd wa nakfuru bi ba'd ñoñu mom amna lu yàlla tud yàlla tud inna alladina yakfuruna billahi wa rasulihi wa yuriduna an yufarriqu bayna allahi wa rasulihi ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون ان يتخذوا بين ذلك سبيلا ديرجا اتبدلت نك واي ابدلت بودبوت فلا جم اولئك هم الكافرون حقا يلا نتيلا مسل واعتدنا للكافرين عذابا مهينا يلا ميغي واجال كيب كو خام يلا دا رد مو بكو فار مغول موي صاح با فاو كون góor ak jigéen yàlla mi leen bokk bind moo leen wutale jayub jamono nag day am ab jay li ñuy wax ab jay ab jay yow la yow la yow la yow la nag nit ñaar nañ ko dégg yow la yow la nga ne lan la nga ne yaa fi ñu ne yaa fi gën su fekkee ku baax nga loo baax baax weddil nel gënuma fi soo soo ko soo ko weddiwu na yaa ngi dugg ci ab jay yaa fi gën moom xam nga ne gënoo fi léeg-léeg ñu joxoon ci nit ne yow la yow la ñu ne mun a lan ñu ne ko yaa ko fab yaa ko sàcc muy xëy na am na ñoo xam ne dañ bëgg a daw ñenn ñu sukk bëgg a jéggulu yaadoo yépp nag eh, am na ñuy wax sax naan teel daw xaw nu ñu koy waxaati daw ba ngay amee tànk ab julit daa war a dugg ci loo xam ne daw dafa ko cay daa war di dox ndànk bu ko neexee daagu bu ko neexee wax bu ko neexee tendeefal ndax kat bari na ñu nga di dégg yoo xam ne ñàkk tàggat dong la ci diin bokk yi aw mool dañ koy tàggat bala ñu ko bala ñu ne ñoo ngi ko sa kawam yóbbu waaja fa mu ko bëgg a yóbbu aw mool maanaam doo amee fas waaye cumbur dañ koy tàggat bala ca ab sëfkat di sëf la muy sëf mooy doo amee warax waaye mboccoor dañ koy tàggat mooy doomi gëléem ñoom ñooñu kenn ku ci nekk bo xëyee xëy bëgg koo sëf ab sëf te tàggatoo ko du sotti ndax du xam loo bëgg ci moom waaye yafal ko bam mu ne dàdd tol ni ñëpp nga xëy xëy bëgg koo war lislaam doo nga ko sañal ku mu neex ku ko neex te bala mo war ci kaw kenn nii dañ koy tàggat yonent bi moo ne ko ne bu amee juróom-ñaari at nañ ko jàngal julli booy julli wo ko ne ko ñëwal taxaw fek bala moo am fukki at ak benn ca kaw ca kanam fukki at ak benn boo ko boolee muy fukk ak juróom-ñett fekk tàmm na ko mooy tàggat gi rek bu ko defee lislaam war ko muy dox ndànk nu mu ko neexee fu ko neexee jëm ak moom waaye soo ko yafalee ba mu toll ni ñëpp xëy na léegi nekk tukkal wala mu nekk aw sàll wala mu nekk ngonk ngelaw li sax du bëgg mu war ko am ñàdd lay xam akum xam ñàdd mooy fañ koy sottal ñax ma muy lekk xamb ma mooy fañ koy sottal ndox ma muy naan bu noppee ñu sang ko ba mu set ñu bàyyi ko mu def lan furti furti xalangu dem tëddaat tàmbali waata lekk ak naan nit nag warut a ci bunt boobu nit moom dafa war a nite li koy wutaleeg ñooñu rek mooy nite gi yor melokaanu nit moo xam muy góor wala mu jigéen bu dee góor mu góor góor niroo ak góor niroo ak góor buy dox sax bum karaas karaas dal yi di xoos waaye dafa war di tegg di teg tegg teg yu yu sore pënd bi na kur ñoo xam ne góor moo jar suy lekk mu bañ di ñalaam ñalaam di tibb tibb yu dëgër te jege nga xam ne fu mu sukkoon bu ñëwee ni fii góor a fi sukkoon loolu moo koy may su defante jotee bu ko lislaam soxlaa mën a taxaw waaye góor dana góor doon góor sax mel melokaan yii ma wax waaye bu taxoo ko jigéen nag léegi te mu ñàkk ak ngóoram day tàmbalee wax li jigéen ñi waxe di lekk li ñuy lekk di doxe ni ñuy doxe su booba bis bu ñu ko soxlaa day mel ni góor te du góor mel ni baa baa moom danga gis mu bari dun ko lool fii sax nga am yaakaar si ne bis bu naaw jotee day naaw waaye bis bu naaw jotee du dem fenn day yori dun ko kese waaye it da jàpp ne loo war a sëf la ndax daa gudd ay yeel mel ni gëléem waaye bis boo yaakaaree mu sëfal la dara da xam ne sëf taxu ko jóg lu ñu njariñam xanaa moo yàlla ñoo ko xam foofu nag nit waru fa dugg waxuma laa góor bokk yi góor na góor sa góor gone yi fa sax junj naa ko léegi gone yu jigéen yu yu bari bu fa góor rax dina ko góor sa góor yi jigéen ci jigéen ñi wax lañ cay lañ cay teg bañ ko nee gone yu ndaw kon lalu loolu sëriñ bi wax lu ñëw ci jamono waaye daal li gën a mat a fàttaliku moom waxam jëpp a mat a jàpp waaye bokk na ca lu waaye neex na def sukkuraat nañ ci kanam sukkuraat par kenn moo koy def koo mën a àndal ak lu ànd ba neex neex ak lu ak lu ngeen par kenn par kenn dalika maa kunta minhu taxiid maa kunta yow yow kese yow kese yow daal waaye nag par kenn képp it la gasal ba mu xóot lu gunge ba xumb-xumb lu mu lu mu bari bari ay personnalité am na fu ñuy yàpp personnalité yi sax nga xam ne ñoo gënoon jaxasoog yow foo nekkee ñu fekk la fa ñoom duñu la laal duñu la jege moom fa fee la ñuy taxaw dara seeni bakkan léeg-léeg ñu fekk leen fa ak parasole muural leen naaj waaw kii dugg ci biir suuf si nag ak tàngoor waaye sa ñoom nekk ci ñoom fii la ñuy yem fii la ñu a yem loolu it fàttali ne ko ci su ko defee nag ñu dugal ko ci biir naan nañ ko ngege naay ndaw ngege naay loolu day gaaw a des daal di cay teg ay bant ba rafet lool léeg-léeg ñu def ci ay dénk yu rafet léeg-léeg ñu def ci ay seng yu bees tàq waaye dara. bu toogee yaari ak yett boo ñëwee doo xàmmee fu ay yoxoom nekk wala ay tànkam loolu sëriñ fàttali ne ko moom képp moo fay nekk te kañ la fay jóge bis ba yàlla di wal bëfta yow ma yunfaxu fi suur fa tatuuna afwaja ba futihat as-samaa fa al abwaaba wa suyilat al fa kaanat saraaba su ko defee nag su booba moom mu génn ne ñëpp yamak ak ñëpp ndax xamagul lim am na doom nee nag loolu ku ko du xalaat loolu neex mën nga def waaye moom su waxee li mu war a wax jaanaam wàcc na ndax kenn ku nekk buy nelaw ak li muy gént loolu yow mën a xam lool euh, bokk yi góor ak jigéen ci seen wuute dem na ba àgg bu ñu faatoo bañ di leen sang ak di leen sang sax malaan yañ leen di sang du benn nañ leen di jullee du benn ñoo bokk kàbbar yi waaye bokkuñu lu ñuy wax kii góor la kii jigéen la ak xale xale bu xale xale bu góor wala jigéen kon bokk nañ dellu si waat xel yi gëm ne tontu jéem a tontu laaj boobu ay a yaxsabul insaanu an yutraka suda mbaa nit jàpp ne dafay nekk rek lu ko neex lekk lu ko neex naan fu ko neex dem kese kese kese bu faatu kee mu faatu mu yam fa demewut noonu ëllëg daa am rek la bu metti يوم يقوم الحساب ولا تحسب أن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار bu ñu yaakaar nag yàlla daa xamut wala yàlla day fàtte nee na yàkkamte wut ndax sàcc boo xam ne du raw moom bunt yëpp tëjee na am na caméra de surveillance jërte yàq say nelaw gannaaw bunt bu mu romb mu tëj mu tëju xamul fu caabi ja nekk jërte yàkkamte noonu la bis bi demee bu mu neexee neex bañ jàpp ne nag nii mu neexee fii day neexee ëllëg déedéet ëllëg ëllëg la ñi jóge fii ci réew mi di dem te mosuñoo dem réew ma ñuy wàcc nañu ko doon séentoo ak na muy mel day tàmbalee wuute léegi ndax am na kuñ gis koo xam ne daa wàcc Rome jóge ci ga jigéen jóge ci aéroport bu jëm ca dëkk ba naan ndekete réew mi am na àll moroom ji ne ko yaa def dafa dëgg rek bu amut àll lu ñuy lekk daa defoo ne lépp état si kese kese lu ko fay def lu ñu lekk ba mën ko taxawal kon boobu wuuteeg àllaaxira ak adduna moom nit mën naa nekk ci am réew ay ati at di mën nay déggante ak moroomam léegi si bi déggante yombe waaye seen diggante mën naa sore sore goo xam ne mën na fay dem ak ñëw su duñ gisante mukk kon boog lii adduna du àllaaxira sëriñ bi fàttali ne ko yàlla na yàlla dafa dégg ak topp te musul seytaane ak pakkam te yàlla na yàlla xiirit ci dégg ndigal yàlla na doon it ca kañ ko war a dégg ak fañ ko war a jële te yàlla na yàlla dox suñu diggante ak